janwaar yi ak mbokki jullit yi fi teew man maag kilifay lislaam yi ma àndal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi jukki kilifay diine yi fi jiite lislaam bi ci réew mi ak ci lëkk bi imaamu ratib bi ak imaamu sawaayaa yi ci def istaashaaf yi fi ne ak rawaïs dawaayir yi ñu ngi ci li kilifay àddina yi fi nekk ak seen jaboot ñu leen di jërgal jëf bu baax liggéey bu rafet bii ñu ngi leen di mastu it ci coono bi di leen jaraw lakku jël gër jëf nag ña ca tool yaa ko moom jaraa bootu kilifa yi boota ko moom jaraw lakk jigéen ñi doon togg كنا كنا أمنا كي سوال لما يجب كخام لنك بلا ما سوري موي دونت سنو مبك منو لين جرال دارا تيجي جنبول من لين جرال دارا نخ إبقال سروري في قلوب المؤمن أو مهلمي من موجبات رحمة ومن موجبات رحمة الرحمن إدقال سرور في قلوب المسلمين أو إدقال سرور في قلب المؤمن أو مسلم كنت أنا لول ما دلين سيدل نيب بما في الدقيق بيجي أما آه، دارا لما نقري بيتي جيب بيتي وخ بيتي جيس جيس يالنا يالنا داك سيرنا كار تيك ألت نوكو في تيو بجاه رسول الله كي دعوة إلى الله له دقل بالمباشرة أين الرحمة الربانية لمصطفى ما بك يا خمي ما بك مباشرة بالرسالة دي. الله وأن لكل امرئ مسلم مؤمن حق بتبليغ قدر جهده دعوة إلى الله نتلا وتجمك يلا نتلا بالقول وبالعمل وبالحال أوتك وح أوتك جف أوتك مانيفست بالخول وبالعمل وبالحال دانك يط يط دف نجنكو كارتي دخنا رجبي وخنا خيرال نيو نجي في نيو ترال لين فني تو كون بالخول كارتي يك رجبي بالعمل تنتبه غيري بالحال لامبا يك سيسي ñetti oote yooyu yëpp si daaji maali dajale na ko ci wenn way jëme ko ci Moustapha amu ci bu mu booyal wa bil xasaw wa bil xasaw والآيات جاءوا وبالقصوات والآيات جاءوا ويبقوا أسيس جارك مجرور سلو رجس مقام وافر له مقام متغارب له مقام منصرع له مقام بسيط له ولا كامل ويفيري دالي سجار جاك مجرور ويفيري سيداج مالي نك ويوه منكو كما سي سجارك مجرور القسوات والآية جاءوا كنا قلنا وجاءوا ويسنن بثلاثة أشياء بالمقال وبالأفعال وبالحال جاءوا بالقسوات وجاءوا بالآيات وجاءوا بوجه المسوني نبي وحنا نطلني دفتر بيه oustaz doon junj ak oustaz Laminu di cent quatorze saar saar quatorze saar yi am na sax ñu ne treize la ndax dañu dàmbale lan faal ak baraa def ko wenn saar li ñu sukkandikoo mooy li mu amul bismillahi rahmaani rahim waaye li wér duñ ko farafànc day guddi cent quatorze saar la cent quatorze saar ñu divisé ko xaaj ko wak bu suuf xaaj ko bi jël fukki saar ak juróom-ñaar moyen cent quatorze di njengeeg lisiraayeeg neleeg ijireeg buraamaak raataak mbërgaan ak wuut yunus bara lan faa laraaf lan xaam njoogu jigéen gi laay laan nekk 120 ci 440 Roubans, 880 Soumoui, 6666 aya, 77940 ci baat 32 015 ci arab composition boobu kooku kooku borom plus le noppalikuwul mu tëral loolu songa jihaar ñii ne nañu wii kaa la bul woy ñii ne yahdi la ñii ne déedéet kabidan la kooku xeex na ba tey xaaj maali dafa woy ne maxaasihi wii kaa xiila la maxaasihi yahdi xiila la maxaasihi kabida alal xilaafi nag يو خمنا اتانا من سي الخدم <laughs> ثلاثه اخوال ما ام تخخي ام نبي في كالا خيخ واو سيس كفر ليف ا وين سب خيخ ام نيو ندي ردي يا ديلا يا ديس يا لغ مجديس موي و الكوبر 5 ديل 4 29 ام نيو بعد ديل 4 ñett wax yooyu la wax ne moom la xeex kon noppalikuwul kooku xeex na ba tey oote na ci wax oote na ci jëf oote na nag ci xaal xaal mooy manifeste ku rafet la woon ku yàddal na la woon daana jënd lu mu bëggul jënd ko ci noon jënd ko prix bu ko jarul allahu akbar nabi daana jënd lu mu soxlawul jënd ko ci noonam jënd ko ci prix bu ko jarul pour rek manifester oote lu dugg ci l'islam ادفع بلدي يا حال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين وما إليك إلا الذين زبروا وما إليك إلا ذو عز ناس بكرتي دخي رجب واخ نوري نك توغ دفال بلاس بي بومو ملني كون نيتي فاسا ني اوتا ييب ديف نين كو نيتي يالا ما فاي بن بون نك يالنا لين كو فاي بي جاي رسول الله سا باب نيغي لين دي بو باخ واي لولو مانا ام ارا وعلى العبد ان يتحتى الاسباب وعلى الحد ان يتحتى الاسباب وعلى الرب من فضله فتو الباب واخو عكسي سبب لو دال ورنا جام سبب لو جام لور اما لغاي سبب لو يلا يالا لور يالا دارا ورو الله جوجو بودوغي دي املك لوكو دوغل دا وعلى العبد ان يتحتى تتنكلا اين ندقل فتحاطى فحاقرا تشا تشا تشا اقترب لغل مو يوت اللف لولج فريول غفخي بجتش وعلى العبد ان يتحتى الاسباب واي وعلى الرب من فضله من فضله باسكو بو من فضله نيو رك نغلم يالا دا وارو دا وارو وعلى الأرض فرفرس أن يتعطل الأسباب وعلى الرد من فضله نك من فضله فتح الباب <laughs> ألا يلا دوغل نكو سخ بتاي تي القران واي دالال خلم ني مي واخا وما من دعبه في الارض الا على الله الا جوجو دو وار دول كو وار داي دالال خلم ني مي واخ وما من دعبه في الارض الا على الله رزقها عرف استهلال نكو خلي Euh, dafa jar mook si ak an bokkuñu liggéey an lu mu jar lu mu doon loo set wecc la laala toog si lu mu jar lu mu doon loo ne ci biir la ci biir mu féetale kaw féetale suuf nga ne ci diggante ba lépp loo xam ne nag xalaa jar na ko yaa teg ca moo tax booy wax mooy danga nga naan sabru an maxsiyati muñ ba set mooy an lañuy wax waaye do wax ne sabru fi maxsiyati du baax sabru ala maxsiyati du baax sabru an maxsiyati muñ ba set wécc ci mooy bu dee topp yàlla nag nga ne sabru ala taati muñ ba war liñ la sant yi ba war leen not leen ba war leen war lay doon du doon an bu dee an si yéefar nga déggu lu mu naan fu waylu lil masalina lazina hum an salaatihim bu doon fi salaatihim rek du baax ñëpp dugg waaye daf ne an salaatihim saawu na bu noonu la siinoom fii salaatihim saahoona kon du baax alaaj aan salaatihim la wax aan an mooy loo génn set ci wecc kon safru anil mahsiya ak safru ala taati not ko ba war ko ak nag safru fil balaayi fi daaxilil balaayi bul xaar ba mu paase ba mu paase ba say pexe jeex nga door a muñ déedéet da ngay muñ ànd ak ame pexe te banque say loxo noonu la ñuy muñ a balaa jibril alayhi salaatu wasalaam rasulullah ku bëggoon yu mel nii la walima nabi daan na def invitation trop daan na santaane ku ñu invité wuy jil boo demee buñ la lekkaloo boo ooree lekkal dogal sa koor ndeem du farata bul way de waaye mujj bu dawata am dak waraaki bi imaam Abdoulaye ibn Rawaata mas naa def invitation na bi dem caag Ababakar ak Omar ak Ousmane ñu lekk ba noppi tasuñu toog di waxtaan ba waxtaan wa loq Sidi Abubakar ne ko man day wan nañ ma ci sa wax xeet yi jur pays yàlla yépp ñettaama ci gënal Seydina ne ko maa yow daje man de yiñ ma won ne day jur tiyaa ba ci gënal Seydina Omar ne man itam kat yiñ ma won yépp na dina jur pays yàlla ñett ma ci gënal سينا علي ين منيت ين مون يب ندينا جرتي نيت ما رسول الله ين منيت دي جيخنا لين خول لين نيت ما تي بوم ياگ مورين جبريل كات نيو نتي وقتان وي نانا موميت يفي نيت كو تي گنل ن بوم ياگ موسى گنا جل و علا جبريل لين يالا ني يفي نيت كو تي گنل كو تي نانا يست نغي واخ بوكو لغي سما روم واخ waye defena buma yebo wax rek bu yalla bi ok di wax ne seen araf wu jëkk juróom-benn araf lañu wu jëkk wa ñu ko bu mujj ma ñu jasam ko moo di masque ak néeg euh, masque yi bu ci ne dafa am ñaari tur am na ci boo am ñett sax doon waar dafa gàttal wax bi sax waaye man gis naa ne ku ci ne bu ñu dàmmee sa arafu njëlbeen wa ca topp dañ ko jasam am Joof Yoor Jon Waar kenn ku ci nekk nag su mujjug tur dafa uuf araf wu dee alifi kii waawi alifu wal waawu wal yaawu wunal uruufu moxtalaati moxtalif du noonu niroo dañu niroo bari na ñaari dëkk yooyu ñu niroo bari na de dem nañu sax ba niroo Lamine Sarr ak Lamine sengor kii fi dëkk sax mu ngi jéem jéem wax Lamine Sarr mu të mu naan Lamine sengor Lamine Sarr John Waar Lamine sengor coow yoon ak Sarr mu ne لما قال بقى ما إكرام الضيف وصوم في السيف والضرب بين يديك العدو بالسيف يتفا إكرام الضيف وصوم في السيف والضرب بالسيف بإسنك نيتلا غنا بك عمر كو تيرال غان اكور غو دجي مبويو ak sama jaasi jii di dal ci loosu yéefar ci sa ndigal ikraamu day fi wa sawmu fi sayfi wa darbu bi sayfi bi ismik seenaa li ñu laaj ko mu nekk màkkee bokk xalaat omar noo bokk xalaat ñu ne Ousmane yow loo gën a bëgg mu ne uta naa ak yéen xalaat ñu ne ko lan la yow loo gën a bëgg mu ne li ma gën a bëgg ñett la yu daanu moom ci mimara ifsaau salaami ifsaau salaami wa salaatu wa naasu niyaamu bari jàmm santeeg gan benn ak ñëppay nelaw may julli Seydina Ousmane ay wax de Omar ak Aliyu ñoo bokk fit ñoo bokkuk ñameñ ñoo bokkuk njàmbaar ihaanatul aytaami ak salaatu wa naasu niyaamu ak ik ak ak ifsa usalaam yooyu ñett ma gënal ñu ni Sidi Abubakar yow nag mën a bokkuma ak xalaat ñu ko loo gën a bëgg mu ne yëpp keef la maa ngi ko delloo ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ko lan la mu ne ko juluusu bayna yadayka wa kasartu salaatu bi ismika wa infaaqu maali alayka toog janoog yow rek bu ma waxee sa tur wi laa tudd lu ma am dépassé ko ci yow yooyu ñett ma gën a yonent bu tedd bi mu wax wax bu diis bu cuuna mënu la dégg yëf yépp jullee ma ci gënal bu ma amew naqar moo koy seral sallallahu alayhi wa sallam ak laal li koleñ ak nag wéttali ko ku jigéen ci li mu làmboo ci kéemaane yàlla la ci jublu du lu mu làmboo ci bànneexi bakkan waaw jibril na leen man de yett laa gën a bëgg a manit seeti ku feebar addil lamaanate àggali yónnent kóllëre tabliqu risalati addil amaana ak tabliqu risala ak isiyaaul janaasa gunge ku ñuy suuli àggali wóolëre yóbbu yónnent waaye yàlla ne na ñett la gën a bëgg boobu nag ma taxoon a jóg jëmma joo xam ne sabrun alal balaa yi ak lami boo xam ne saakirun qalbun zakirun maanaam lisaanun zakirun wa qalbun shaakirun wa jismun saabirun lamiñ wuy sant boromam buy tudd boromam xol buy sant boromam jëmm ju am jom mën a muñ nattu moo gënal yàlla nu ngi leen di sant pàpp Lamine lii Lamine wax ak sama goro dëgg la yal na la yàlla doollee fay fay jullit yépp seen taxaw fu mu mën a fanaan ak lu mu mën a fanaane te fanaanewul lii mbaa lu mel ni lii billaahi yéen a ko gën guddi te bu ñu teree fu ñu jëm dinañu xam ne yéen ko gën guddi li may wax nag balaa maa dugg ci jàng yi bariwul mooy nu góorgóorlu dollee góorlu te xam ne dañuy tukki tukki bi nag ajiwul ci suñu coobare xamuñu kan la ñuy dem fomm naa dematuma ak sonn naa fii laa yem du ci am àgg rek àgg rek àgg rek xam nga fu ñu jëm bàmmeel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 baayam bu ko laajee baayam daf ko naan nii laa ko fekk ku toll lii nag ku ko def ah ah chargé ko ba fees del ak matériel xam ngeen ne dënd yi ciy jóge xajul ci nit de melax yi tax ñëpp gëmm xajul ci nit de ndox mi daal di sotteeku ci suñu maam yi ba léegi neex ba dee bi diw yi na waañ جنت بي داو سبا نقول مسولة تابي وسمت تجري لمستقر لا ذلك تقدير الأساس العليم والقمر قدرناه منازل أساعدك الوجود القديم لا ذمت ينبغي تدرك القمر ولا لي يسابق النيل وكل في فلك يسبحون جي جي جناح دي ديالو جناو موي قدي بمو يقم بچك دي بچك بمو يقم مو موي تاو بمو يقم نار دي نار بمو يقم تاو نجي بيك بمو يقم نجي بيك دي نجي بمو يقم نجي بيك دي نجي جي أمب وسين تاي وخنا نيه magasin bu xate atelier bu xate ni biiri jigéen atelier bu xate ni biiri jigéen ouvrier bu toll ni malaaka di ci liggéey ñu génnee ci lu waloora doom aadama ku dul yàlla mën loo subhaana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 عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما تقى bu jibril masa di ñëw ci moom day summeeku ni jaan bi summeeku indi melow nit ku ñuy wax daa iyatu kal bi melom la nabi daan indi jibril daan indi bari na ko soxla nabi ubbi néeg ne dafay waxtaan ak daahiya fekk jibril la fa ne ñaar yoon la nabi ma sa gis jibril te moo ko ne bëggoon naa gis nga bëggoon naa nga won ma na ngay day ci ars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 ما ساق البشر وما تقى لقد أرى من آيات ربي الكبرى أن الجوخ سدرة منتحة موي موي ليميت نتني فرضا ما دم يديم فرضا ما أوبسال تأم سيطان تلو داقس فيني بند ليميت فورمنا ملاتي أن ندروا جينا دخون توا أم نفيني دول جيكي سيطان منتحة كلام فنغيم موتا بجيب لدي يبون ببعك سفر منو لباسي نبي دفكنا دخون منو كمنا تما دم سما باسي في بين جيغو لير ارسلكما وما منا الى لو ما خام معلوم وانا لنا المصافون وانا لنا المستبحون يونا يا خرتي يالا جلال نبي باينا كو فدي دم نان كو ادلو ميني جيغن سيل ادلو ميني جيغن سيل با ديغنا كو جيروم نياري جونن يون بو سي نك توت نو نياري جونن كيراي الى خاب قوسين او ادنا فوفنا فاوا الى ديما ما كتب الفؤاد ما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 mën naa am ku ne posat na ci curux mun naa jàppale nag kii fekk nga jaaxal ma ma foog ma foog àjjana yóbbu ca gannaaw foog safara def ci diggante bi siraat mi ngeen di dégg pom la pom nak foko fek fekk boo ko ronoo gaañu nga tak fo fek ñu pom rek yéeral boo ronoo pom ba ngir yàkkamte di nga gañu ma nga tak dañ ko pom sara safara dañ ko utal pom bu sew ci pom bi lañuy jaar nak dem aljana pom be guddu nak junay at santer junay at sere ni kawari fas ñawé ni jassi ind lëndam ba melni ni oxet di di yëngu nak ni jaan ju ñu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 مش طبعا نقول بيت نبتل نكر فيك تدخل جبريل تيت سوبيكو نيت نيو يكتكو فعل كو سوفسي نانكو فكيف لو رايت ميكايل يا رسول الله بو جيسون ميكايل نانجي ديف نبي خيناكو ميكايل افرمونكو ميكايل ما افوفوف ديجنتي تنيم كو ميكايل اك بخي بكين يجيبيل نانكو تيميرات منولاك تيميرات لا لا وخلي تكت ما وخلاك جبريل جرومي تيميري الافلام لا فمو جيني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 ndéem nit moo mën a gis ku jigéen lu ko yéem ci taar ba gaañ boppam te yëgu ko fa la maa sami at bi makkari inna ارسلت اليهن واحتدت لهن متكعا واتت كل وائدة من ذكنا وخالت تخرج عليهن فلما راينه كبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا هذا لله ما هذا بصر ان هذا ملك كريم من انفسها لكل شيء لم تمني فيه ولقد راتها نفسي فاستحسن ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاقرين لقطعنا قطعنا لازم لهون بثلاثي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 damay gàmm ci nakar mu yag avion tim ñu xaraaraar kenn déggatul man a xam ngeen lu war a coow ñu ne déet mën a télé rek malaaka yaa ngi fi romb kenn yëgul ndam da malaaka moom mooy cippeelu Sénégal te benn malaaka ngi day noonu raam daan ko dugg ci cof yor wala war kenn du ko yëg mu dugg ci biir kër gi du tiital ganaar du tuur ndékki na yoxoos ci biir néeg bi tàbbi ci atelier bu xate ni biiru jigéen sans outillage sans apprenti liggéey fa lu waloore ni nit génn dem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 يوم يسند المكتبين كل وطمت خليلا إنكم مجرمون ويل يوم يسند المكتبين ويساقل الأمور كعب لا يركعون ويل يوم يسند المكتبين من فبأي حديث بادو يوم يسند مولي لا نون ربي تعالى بنغلا تجد كأن كتنا سيفة لفجيد كأن كنا بنغلا تجد خرمين لي خرمين لي انكين تجدنا بيابة لخار أنت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 te néew doole laa wax ku dëgër bopp te néew doole nit ñi dëgër nañu bopp torop torop yàlla day bañ nangam sëriñ bu ko wax ñu ree moom daal li tane xanaa wala ku ko wax doo nangam ku ko def doo dem àjjana soo ko waxee sax nit ñi ree la nga xam ne ñaan na àjjana amul léegi day ci tane nangam ku ko def dee dinañu moytu de lu mën lu ñu mën a nag te kat kooku moom kenn mënu ci dara qul innal mawta la fi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum dégg nga alquran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 ak déggoo gi ñii enu ji baas ñii uti lamp ñii jëndi nag ñii cotiser waxuma sax yéen waaye Lamine mi doon leen jàppale ci rek fan yii yëpp noppalikowul aal bi ma ko fekk ci seen dëkk ak taxawaay ba loolu ku ko defaloon sa naw la sax mu ut fu ma la defal waxuma ku toll ni yàlla te yàlla na bi rek ko ñor na bi dong mooy ñor yàlla ku fexewaat ba yàlla nga ñor ko na bee la ñor ba tax yi nga yoon nga ñor yàlla ma ne yàlla ne bi rek la faale ku mu faale ti faale na bee tax mu faale la am de wax na nag bu yàgg ne laqad manna allahu ala almuminin is bahasa fihim rasula laam gi xasmu la xat gi tàqiq la nun gi di tawkid maa bëggoon rek nga bëgg nga xam araf yooyu li ñuy def wax laqad manna allahu ala almuminin billahi laan gi looluy firi xat ca dëgg-dëgg man na piir la billaahi ca dëgg-dëgg xéewal naa piir nit ñi billaahi doyoon na billaahi xéewal naa nit ñi doyoon na ca dëgg-dëgg xéewal naa nit ñi doyoon na xéewal naa nit ñi piir doyoon na waaye laa mu xas mu xatuk tafqiq ak noonu tawkiit benn baat ko toll ni yàlla wax ko laqad man na billaahi ca dëgg-dëgg baaxee na piir laaw yàlla waxuma nit ñi alal moomi nee na laa wax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 bëgg a jaar feneen waxatuma laa ngay jéem a jaar ci noon bëgg mu dox mënu nekk ñu góorgóorlu bàyyi suñu xel. waaye nag fekk ku ñuy dóor nga naan ko bul jooy bul jooy diir nga naan bul jooy du sotti da nga naan kii dóor bàyyil dóor yi bàyyil dóor yee gën a wër bul jooykat kat bul jooy waay muñal bul jooy diir bul jooy diir nañ dem fi dóor yi dale <laughs> ñu wax ko ne yenaase <laughs> ah? moo tax nag manoon ne daanu dem mën a Munawwara bi ma jëkkee def appel bi laa dem Medina def naa fi juróom-ñetti fan maa ngi fi jóge ajjuma dellu si ajjuma ndax gàmmu jàmbur yee tax wax naa Rasulullah ne ko Sénégal yi ngi ñëw mu ngi leen di préparer di leen teew dañuy unga si waaye dañuy def si visite de service dañuy tawat si waale ñu fi jógee la 15 juin dellu si le 29 bu neexee yàlla laylatul qadar mu for mi gën a for ci weeru koor weeru koor gën a for ci weer yi bi gën a for ci nit ñi te suuf soo mosula mooy yàlla boo fa taxawee loo fa ñaan yàlla may la ko sëriñ si dañu tukki tukki bu solo te duñu xam kenn ci dëkk ba dañuy wàcc dal ca càkk ja ñaan seen ñaan demaat ngir suuf soot mosula mooy yàlla loo fa ñaan yàlla la ko lami woo mosula mooy yàlla loo ca ñaan yàlla mu defal la ko moo tax ku ne naan sama rom sarax ma ñaan sarax ma ñaan ndax mënu muus ba mooy yàlla ci lami ñu jàmbur te la mu ñu wóor mosu la mooy bu ñu ci ñaanee dafa am benn waay bu baax benn waay boo xam ne yàlla daf ko natt woon mu xaw a gàccoor te bari doole rey nag soixante dix neuf quatre vingt dix neuf nit ku ci ne jullit la génn guddi mu tiit bi ma lay wax nag benn waay ci Israël la tawatur la nabee ko nekk yi mu dem ba ci sëriñ bañ ko tegtal ne ko yaay sëriñ diw mu ne waaw mu ne ko man de damay tuub si te dégg naa ko mën a jàng nga waaye dinaa la wax sama def rey naa quatre vingt dix neuf personnes ndax sama tur yàlla nangu ko mu ne ko kenn nii rek ko rey safara nga jëm mu ne ko comme safara laa jëm nag naa la fas complété sang yi rey ko mu rey sëriñ ba muy sang waaw waaw waaw waaw kii na mu turu si net net naa la kay chef d'état bu tàng diine bi Habil Mansour dafa def invitation bu rëy naw lay chef d'état waaye dafa tàngoon ba sol gëm yépp dañ ko ragal garçon bi ñoo di servi ñëw jub ko rek di lox fànq ci ci ci ci ci sos bi yëkkati ko mu toq tuuti ci mantu bi mu sol mu tiim ko ni ko da nga dof xanaa waa ji di lox mu daal di nag benn piton ñaari sàndarma ñëw mu ne nañ ko exécuté nañ ko rek waa bi mu xamee ne waa ji te fay rek ci def mu fab la desoon ci ñeex mu tuur ko ko tuur waaw maa ngi ko tooy poos ba benn dox bi rek la ko bëggoon a rey tuur lii jaar ci turki bi lii jaar ci kii mu ne bërët nekk yow nga dof mu ne ko déedéet bëgg la rek tax ma def mu ne ko bëgg ma mu ne ko bëgg la toq toq bii ci ma naroon a rey soo ma ci reyoon sa der yàqu dañ naan jaru ko waaye bu ma la tuuree ñax mi sa kanami le boo ma reyee ñépp ne ma jar na ko mu ne ko bàjj bi yaa réy tooñ te mën a lay doxal ñibbi naka dëgg loolu naka dëgg bu ko reyoon ci toq sax bi deram yàqu waa ji it mu ne ko comme 99 yi ma rey na ko rey kenn sax safara nga jëm et eh, naa la complété sans rek dog bi dem ñibbi toog weer tiitaat di laaj ba ñu waxaat ko beneen sëriñ bu mën a jàng mu dem na ko yaay sëriñ diw mu ne ko waaw mu ne ko man day dama am bàkkaar bu rëy doon jéem a tuub xam nga sëriñ diw mu ne waaw mu ne ko maa ko rey dama reen juróom ñeen fukk ak juróom-ñeent te dem laaj ko ndax bu ma tuubee yàlla nangu ne mukk ma rey ko muy téeméer léegi nag dama tiitaat di la laaj ndax su ma tuubee yàlla nangu ko sëriñ bi ne ko waaw waaw sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi gaa mën nañoo defee ne dafa ragal dee waaye dafa dàq jàng ku njëkk daf ko raw mu ne ko na may tuube mu ne ko da dem ci suuf soo musula mooy yàlla soo demee foo musula yàlla boo boo mooy boo fa tuubee yàlla nangul la waaja nga dëkk Dakar waaye comme dafa rafetoon bari xaalis rafet juddu tabe wax naa ne borom koppar bu rafet na góorgóorlu càncaay yomb na ko càncaay yomb na ko lu mu santaane ñu def ko waaw tabe bari xaalis góorlu càncaay yomb na borom léeg-léeg nga dem ci kër ne koŋ koŋ koŋ xale bu sof ne tëdd nañu ne yaay ba diwa doon fëgg <laughs> mu ne oh doom te duma te duma kooku kooku war naa moytu boppam de borom wërsëg wu yaa war naa moytu boppam càncaa yomb na ko ku néew doole it war naa moytu boppam tiyaaba yomb ko ku tiyaaba yombul day moytu boppam ku càncaa yomb day moytu boppam ku reegul rek di nga sa xel ne ko ci saraxe amul ak dara ku amul dara tiyaaba du ko yomb ku bari wërsëg càncaay daf ko yomb bàkkaar ku ne war naa moytu bopp waaw non keroog keroog keroog keroog ci football ba daal sàngam xana jàll njaareem njaareem solo fa xel ma daal fa mu dem ci ne jërëjëf badalaka laaw xayran fa mu dem ne mën na faa taxaw assuré ne dafa fa yàlla lu ko naqari ba ma ko la te Dakar la dëkk àll bi yëpp ruur na ko mu fabu génn Dakar ñëw ba caaro yi malaaka nootu def ko rey ko fa malaaka yi ñëw di ko jël si malaaka yi safara ñëw di ko jël si ñu buskulante lu ngeen dut fii kii rey téeméeri nit mosula defal yàlla dara ñu jël mu ngi lu ngeen fi wut yéen waa àjjana waa àjjana kii xam ne am na borom xam na ne tooñ na ko ba génn këram di tuubi lu ngeen fi wut yéen suñu borom yeba jibril nako ko demal arbitre len nañ nat fi mu jugge ak fi mu jëm fu gëna jege ñu jugé ko ba ma ko la jëmon kat Dakar la jugge caawi la dé mais bi ñu commencé di natt la yàlla yeba jibril xam nga jibril dafa bari doole fi quwwatin bako ko isa samsu kuwirat way sa nujumun kadarat way sel jibalu su'ira way sel ifara xotilat way sel unsu ofirat way sel bi'aru sujirat وإذا النفوس سويجت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا سوف نسرت وإذا السماء قسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت ألم نفس ما أحضرت فلا قسم بقنس الجوار كنس وليل إذا حصحص وسبي إذا تنفس إنه لقول رسول كريم يقر بجبريل نسي قوة نسي رأسنا كان متاين سمعني جسنا nga boo fa bon banta bu ma laalee fii ni fële di jóge jibril fu mu dóor tëstanam noonu la suuf di solankaar yi keroog bu mu jullee ba nabi di jullee ak xama te mu nga dee ca Éthiopie nabi nekk ca xare ba ca moray mu ne ko sa xarit dee na ndax bëgg ngaa fekkee julli gi mu ne waaw daf ne nii tëstanam rek suuf si faram mu jàkkaarloo ko ak xaaf julli ko suñ borom daal di santaane jibril mu taxañ suuf ñu meetare ku jógee Dakar jëm Bamako dee caaro yi. biñ ko meetaree ba ma ko gën a jegeñ quelques centimètres te la yàlla dëgg yóbbu kàcce suñ borom ku bëri yërmande la ina waa ina laa waasiu rahma dina yërëm nit ci tiit dina yërëm nit ci yaakaar yonent bi daan na gis ak yàlla ci asamaan léeg-léeg daan yàlla woon ko ci lu nar a xew da daan téen nii rek gis lu gaa yi gisul ñu ne ko lu xew yaa rasulallah mu ne nangam ak nangam ak nangam am na bés mu muuñ ñu ne ko looy ti sa ciñ mu rafet mais yàlla nga yàgg muuñ mu ne ñaari gars yi la yàlla jugé ku ne war a dem safara suñ borom na safara jaana na kenn ku ne bëxal nit jëm jaanam def tararal di daw suñ borom ne daf leen ko ñu daf ko mu taxaw ñu ne ko foo jëm mu ne dafa mel ni yàlla def nañu dem safara ñu ne ko waaw mu ne fa laa jëm ñu ne ko waaw safara di mu naqare loo tax di gaawtu mu ne ñàkk dégg ndigali yàlla ca àddina moo ma yóbbee ceen yi ñu ma ceene ma bañ mu dal ma fii yàlla na dog leen ceen yi sang ko yóbbu àjjana jenn waaja nag demul mu ngi ne yàcc rek taxaw yàlla na ko yow li ñu wax dégg naa ko de dañ ne dañ ma dem safara mu ne ko looy taxaw mu ne ko suyur mbënd ju bari ji may dégg laa foog ne balaa jeex moom mos ci mu ne ko demal àjjana kii dem na àjjana ci ragal kii dem àjjana ci yaakaar waaw ju yooyu ñaar mooy dox جلعله ومالكي موته تبادر قادر الأمام عسيب وموت مالك ذلك جمال الرجاء والخوف الذمة ومالك المولى ومالك جناجة والقوم ترنا ومالك الموت وهو مالك جناجة والقوم ترنا ومالك شكر فيه جناجة والقوم ترنا ومالك شكر فيه جناجة الرجاء والقلب ثم هو مالك الموت من بخل في مكة فوق ودابار الأنام يصيب جناه القلب والرجاء درنا ومالك الموت يا مري يا رمان يا آه، خميون يا يا يا قال هو سر سر الله سر وجودي مولود بأيورب الرحمن وغصينا ويبشر قالوا قياله أماما أماما بچه نواو leen. waaw waaw waaw waaw waaw. waa Seydou Seydou Ndiaye Maodo maa nekk ba crédit amaan. Mm. waaw Seydou Ibrahima maa nee na. waa Seydou Seydou Ndiaye Seydou wujudi Maodo. Seydou mm-hmm. Ibrahima wa wa Seydou Maodo. amaa man waaw. حين خذت به قلوب ملكيت ما تدرك الناس سمعنا بلية الهدى بدوا انتجوا وكل عالم منتظم دنيا الله بي بي بي بي بي جل محمد صلى الله عليه وسلم سر الله سر جادي موته آه. रहानू मौज ह وجودي دي دي دي ماذا معلش شدر لا يشير وجودي قدك لواي اه, آه. يسر وجودي موضة سر لا يسر وجودي موضة سر لا يسر وجودي موضة اها سر الله سر وجود موضع يأم إيه، وجود آه، أنا من الله هو سر سر لا سر وجود موضع دفنه نبي دفنه أنا من نور الله هو سر سر لا سر وجود والوجود كله من نوري هو سر سر لا سر وجودي من ما نجي jóge ci leeri yàlla man Muhammad

نور بجتكي نور لايل نور نياركي نور رسول لايل او اثر رسول الله في وجودي وتعالى جمالك هو اذ اراد الله نشأتنا ابان منه وإذا وإذا

إذ أراد الله نزعتنا لما أراد الله نزعتنا نمدف أبانا أبانا كيفا من نوره لمجا من نور نور النبي العالم اوكي اخبانكم جلاله ما يلا جلاله ما رسول كمال موي جبريل امنا جماعنا كمال امول جمال امول جلال رك ام اسمان امول سوف امول اجنا امول سفر امول حادم امول حوا امول ميكائيل امول اسراف امول جبريل امول جليل جي بجلاله ba jalaalu toogee ba bëgg nag ut ñoo xam ne dinañu xam ne mooy jalaal dafa coppati ci boppam coppati bu kenn mënul melal mellal wàññeekuwul yàlla mën naa rocci ci jëmm jëmm te du wàññeeku kenn ku ci ne am nga doom ju toll ni yow toog te noru la <laughs> am wóoru la bënnu la peeru la mu ne wa ceer ku day ni yow tolloo ni yow niroog yow nga ne ñu mandi di waaw dafa sàkk ci boppam sàkk nu kenn mun la melal génne ca leeru rasul tey xaaj malik ne ma xamal la degere rasul ak na mu day wa innahu lii dëgg te xew ma wax la is araada ba nga xamee ne décidé na laawu yàlla nas naa sos na nun doom aadama yépp abaana dafa sàkk mi nuuru yi ci leeru boppam nga nóoral na bi leeru Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ne alaaji Malik jalaal ba mu toogee di jalaal xam nga jal julli yi nuy julli koor yi saraxa yi laay laay la laa yeewu jàkk saxal nguuru yàlla gi la du lu muy jëriñooti liñ ko war a jaari nabi jaamu na ko bi dara laa tax ñun ñëpp récompenser rasulullah jalal sakk ci boppam ku ñuy wax jamaal muy rasulullah waaye nag mu dox mu doxale digganteem ak moom fukki junne kiiraay ak ñaar ak fukki junne géej ak ñaar làqoo ko ko ba xam ndax dina service bi dit jalal nekk moom rek jamal nekk moom rek jalal di yàlla jamal di rasulullah àjjana amul pour nabi ba xemam safara amul pour mu ragal ko jabar am pour mu wettaliku ci nit amul pour mu roy ci moom du am ci asamaanu juróom-ñaar suufi juróom-ñaar jawwa ji suuf si géej gi ñaar yi ñaar yooyu rek jëmmi jalaal ju màgg ja ak jàttal gi mu jàttal ci boppam jamaal mu rafet mi di rasulillah mu di ko jaamu ba xotti fukki junniy kiiraay yeeg ñaar fukki junniy kiiraay ak ñaar kiiraay bu njëkk bi xam nga nu mu tale fukki junniy at ak ñaar la fa am di yàlla rek di sabbal yàlla rek di yàlla ba kiiraay ga mel ni miir booy dóor mart te koo bàyyi di ko dóor mart ba kiiraay gën a tagax mu defee ne dina àgg mu dese fukki kiiraay ak benn benn ba moom ci fukki junne at ak benn jeexalu ko daf ko dóor du sàll turu yàlla wu jëkk mu dóoroon bële taxul mu am yoon mu dóor ko turu yàlla woo xam ne kiiraay ba su koo dégg ne xaay turu yàlla baa jàpp kiiraay la mu jaayu na bi poroxlu jàll dese fukki kiiraay kiiraay lay ne loo fukki junne at la ba ca topp juróom-ñeenti junne at ba ca topp juróom-ñaari junne at ba ca topp juróom-benn junne at ba ba ca topp juróom-benn ca topp juróomi ñeenti junne at ba ca topp at ba ñaari junne at dara amul de dara amul. jalaal ak jamaarat mu di jaamu ba ca topp ñaari junney at ba ca topp benn junney at kiiraay yi jeex mu ne tëll ci ndeneer goo xam ne moo su Tambacounda di géej rek góor gan ci ginnaaw géej gi ci ginnaaw goo xam ne kenn mënu koo melal ndax mu ngi ci kanamam mu ngi ci ginnaawam mu dëgmal uti ko xuus premier géej gi am ci fukki junne at ak benn di ko sabal ba mu niis mu dugg ca benn ba di ko sabal ba mu ngiis dugg ci benn ba mu sabal ba mu ngiis bii fukki junne at la ci am ak ñaar bii fukki junne at ak benn bii fukki junne at bii fukki juróom-ñeenti junne at bii juróom-ñetti junne at bii juróom-ñaari junne at bii juróom-benn junne at dara amul dara dara dara dara bii juróomi junne at bii ñeen bii ñett bii ñaar bii benn benn bu mujj boobu ba ko na bii jeexal bettax ba ca des tooy dina roog ban la taxoon ci tëstanam ba mu ko wicci xëy sànni moom la ma laa yi aw bind ci asamaani juróom-ñaar bind ci suufi juróom mu fab ca suuf soosu nag bind ci ku ñu wax kamaal léegi jalaal am di yàlla jamaal di rasulay kamaal di jibril mu ne kamaal nag kaay ma yónni la man jalaal ca jamaal jalaalay yàlla kamaalay jibril jamaalay rasulillah xam nga naka yàlla yónni fab asamaan yu suuf juróom-ñaar def ko enveloppe fab suuf juróom-ñaar def ko këyit fab mbindeef fi def leen muy wax bi muy wax ak moom fab aras def ko tembar fab kursi yu kaste ko ko ne nga jox ko ko ne bi tey am bala boppale santa sant boromam ba mu xotteeku juróom-ñaar fukki junne xotteeku juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki juróom-ñaar bu ci nekk di xaalim boo xam ne tànk mosu caa dem na ko boo demee neel jamaal man jalaal gërëm naa ko maa ko jox loolu comme ron comme paas ci la malaaka yi am nit ñi am ci asamaan am ci suuf yi am ci sidaaji Maalik ne boo bëggee xam la xew mooy wa innahu di dëgg تي دك دمير صح نلا أمر في موديلو أتاك جدال ولفن وإنه لي دك تي دك موي إس أراد بقى خميني ديسيدنا لا ويا لنستكنا صوص نون دوم آدم يب أبانا دفا فاك من نوري سيليرك بطم قل نور النبي ليري النبي قل sakki ci loolu ne bi gën a bind fi yépp ñu door a dem ñu ne booba asamaan ak suuf fi mu nekk mu ne xam naa fi mu nekk भेवा